lavar a roupa. wa ñaar 24 maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen dalal fi ci sorox dalal jam di leen ñaanal tànk bi ngeen ñëwé ñen ñi bokk mom jam bay fi jàmm man ñu yàlla may jam ma ngi tuddu Basirou fay nek euh, chef de village bu sorox dama yarok sama mam fi sama mam bu jigen ki jur sama papa yarok fi ak sama papa ak sama bajan waxtaanook waxtaanoo waxtaan ak man ci cosaanu dek bi xëy na mënumaa jàpp lépp waaye ci li ma jàpp rek danaa leen ci wax tuuti ak li ma ci xam mm, ginnaaw loolu Sorokh ki ko njëkk a sancu fii mu ngi tudd woon Tase Jaañ moom mu ngi jóge woon dëkk bi ñuy wax Njorox Jigéem bu ma jógee njorox jigéem euh, yorok juram ñëw ba fii am na benn àll bi fii suñu digganteeg ndoos mu dal foofu bu mu dalee foofu léegi daa yoroon comme nag yooyu mu yoroon euh, bu demoo sami sami sami ba ngoon jot mu ñëw yeew nag yi am na benn guy bu nekkoon foofu itam foofu la doon yeew yee selu yi waaye comme dal na foofu li tax mu jóge foofu euh, selu yi dañ doon dee foofu mu ne ah fii de moom du dalukaay après foofu foofu la ñuy wax mbarxaxel mbarxaxel al boobu mu mu mu mu nekkoon ak nag yi te celui di dee mu naan fii de ay mbarxaxel mu ne fii du kii mu avancé waat bu mu avancé ñëw ñëw ñëw boo fii am na benn guy bu nekkoon fii xaw ma naga plante boobu nuñ koy wax waaye bu dee ci séeréer ngol lañ koy wax mu dugg foofu nekk foofu ah yàlla def li ko daloon fale dalatu ko fi mu nekk fi nekk fi nekk fi boo yegg fi ab jigéenam ne comme sama camiñ dem na xaaral ma topp ko su ma ko toppee ba xam fu mu nekk ci ak lu mu ne ci lu mu nekk man door a xam moom itam mu jóge foofu njorox jigéen boobu di dox di laajte di dox di laajte ba dugg si fii fekk ko ci guy googu eh, guy bu taqaloog ngol boobu xam nga français lian lañ koy wax xaw ma lian bon mu fekk xam nga ab kii la nii day am ci kii bi comme genre néeg lay doon rek waaye garab yi kii da koy muur noonu mu fekk ko foofu mu ne ko ah tase fii nga ne sorox man laa doon war de waaye comme gis naa la alhamdulilah mu ne kon de fii sorox lañ koy waxati turu sorox foofu la soxee ko maanaam fu mu duggee foofu rek ne sorox foofu mu ne fii sorox lañ koy waxate tur bi foofu la jóge léegi euh, wax nañ ma ci nattali ne ci booba jamono euh, kii moo nekkoon buuru siin waasila te kooku mu ngi nekk buur moo nekkoon huitième roi du siin boo seetee ci lignée roi yi moo moo nekk huitième roi di di Sine te moom mu ngi toog ci kii bi mille deux cent ba mille trois cent deux quinze ans yooyu moom la reñe ci kii yu jaxaw nee na Sorokh ci jamono boobu ci jamono buur si euh, Wasila boobu euh, ci jamono boobu la Sorokh fii soxee ko moom lañ ko sanc jat waxuñ ma itam dag exat ne sorop at bii lañ ko kii waaye diggante mille neuf cent mille deux cent quatre vingt ba mille trois cent ci diggante boobu la ki fi njëkkoon a nekk euh, boroom dëkk bi jigéen la woon ñu ngi ko doon wax Pod Faye ku jigéen la woon léegi ñu dem dem dem bu ay jamono xam nga rek comme bour mom yeen say nit yi dañuy joge fi di wax ni diki, ki ne fale jigen ko jité affaire bobu bu affaire bobu deñ euh ki ñu wax mbar moy suñu mam moy kiñ ma tuddé sax ndax basiru fay lañ may wax waye ci turu ciosan bi mbar la tuddu mbar momu lañ ma tuddé waaw koku mo nekkon borom dekk bi kooku moo ñëkk a nekk góor bu bu bu nekk borom dëkk waaw mbaar moomu moo jur waasila waasila moo jur waagaan bi ma jur mbaar moomu itam moo nekkoon borom dëkk bi bu mu fi jógee am na beneen ku sant ju waaye kooku xaw ma tur bi waaye kooku yàggu ci ndax nee na matul at sax kooku itam yàlla def mu gaañu euh, sama maam ki jur sama papa waasi la kooku jëlaat kii bi nekk ci ba gaañu kooku defe na ay 1966 yooyu waasi la moom sama baayu papa boobu ci la gaañu après doomam bi ñuy wax amay safay jël amay safay moom moo jur mam biram bale sama mag boobu ay doomu bay lañu amay sa nekk ci nekk ci ba euh, ba nekk na 1976 la gaañu amay sa fay ko mooy kit mooy bi waasi la gaañoo baayam après moom mi jëlaat kii bi nekk ci bo ay 1976 yooyu mu gaañu moom itam moom amay sa après sam papa waagaan fay nekk ci nekk ci nekk ci 3 juillet 2018 moom mu gaañu moom sama papa après depuis 2018 ba léegi man mi Basirou fay ma ci nek waaw sorok nak dëkk bu mag la euh, ndax ombuna juroom ñaari amoo amoo yooyu mooy Godagen Kër Ajma Rujuj Mbulub Saabang Tokambel Pakom juróom-ñaari amoo yooyu la am nit ñu fiy dund population bi mu ngi tollu ci junni nit ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk borom njël yi mu ngi tollu ci téeméeri borom njël ak juróom fukk ak juróom euh, dëkk bi tam gis ngeen ko am na benn forage am na école primaire am na école arabe am na mosquée am na itam église am na benn magasin bu ñuy wax pôle service paysan boobu mu ngi nekk fale ci amoo bi ñuy wax Godagen fii itam ci biir dëkk bi am na ñaari magasin stockage am na courant waaye ba tey courant bi takkagul loolu moom ci jafe-jafe yi la léegi moom boobu ci kii yooyu euh, fii tam sorox mi euh, mu ngi diggante ñaaxar ak jaxaaw defe na fii mooy diggante bi ndax boo jógee fii di dem ñaaxar ay juróom benn kilomètre dem juróom-ñaari kilomètre ci ñaaxar loolu la war a tolo ak jaxaw itam distance distance boobu la war a tolo xur bi moo dugg suñu diggante xur boobu itam Euh, mun nañu wax ne dafa xorome amoon na ay jamono dañ doon béy foofu ay légumes ay tomates yooyu pataas lépp waaye nag xorom si day ñëw boo mun na ci nuñ koo kii foofu am na benn partie itam ci kii boobu foofu la ñuy kiyee ndox mu neex mi balaa ngay dugg ci xur mi am na benn napp bu nekk foofu foofu la ñuy kiyee foofu defe naa lu mot juróomi teen ndox mu neex mu ngi foofu foofu mooy fu ñuy wax sorox maak waaw nag bu dee fii itam ay béykat samukat moo fi nag mm, ñun mbay ak cam ak njënd ak njaay mooy suñu eh, activité principale yombul eh, dara yombul même jiite ker sax yombul yàlla rek moo la mën a dimbale eh, waaye maa ngi sant ñëpp di gërëm nag ndax mun naa leen ne ah dëkk bi rëy na lool waaye ñi fi dëkk ñëpp koo ci tasewul ci ngeen tase ci ndey kon nag lu mu munte am itam dañ ko waxtaan suñu biir rek kii ko fi xëy na dëkk bi nu mu tollu problème yi munoon naa tollu foofu ci affaire réero wala kii ŋaa yooyu waaye nag macha allah ñu ngi sant foofu xëy na lu mun du ñàkk waaye lu am moom danañ ko régler suñu biir loolu yëpp ci ñoom la waaw jafe-jafe yi moom bari na de bari na de ndax euh, amoon na jamono fii xale bu fi gën a tuuti boo ko woon sax ne lan mooy jafe-jafe Sorokh mu ne na dispensaire xëy na loolu yàlla def na boo loolu saafarawu na waaye am na lu des foofu ndax hôpital bi kii dispensaire bi. mu ngi fonctionné waaye nag logement euh, sage-femme bi ba tey amagul kooku dañ ko abal benn logement fale rek mu nekk ci te loolu jafe-jafe la te xaw naa so rek euh, poste bi te ki nekk foofu itam jigéen la te moom kese moo fa nekk xam nga loolu moom jafe-jafe la te place boobu itam euh, fii périmètre dispensaire bi wuñ ko noonu la nekk ci vide bi rek tabax bi moom baax na macha allah waaye nagam. amul sécurité ci kii bi boobu jafe-jafe la école primaire bi ma leen waxoon mu ngi noonu école bi mu ñu ko kii depuis 1983 waaye ba léegi miire wuñ ko benn partie rek lañu ñu miire foofu te foofu benn ku baax rek moo ñu baaxe woon 10 tonnes 10 tonnes ak euh, xale yu góor yi nekk ci dëkk bi ni ñu dajale. bo def parti bobu waye ba tey sax des na ndax defé naa ben mm, longueur bi sax motul lolou mu jafé jafé la ah. mm, ñaareel bi gis nga dekk bi tam nu mu su rox centre bi buñ nané amul moulin amil. xam nga né lolou itam jafé jafé la suñu ji euh, jabar yi buñu suñu waaw suñu bu ñu buggee wol dañuy déplacé boo ci amoo bi Godagen dem soxlu foofu wala wëllu foofu wala Podom te da nga dox à deux trois kilomètres yooyu xam nga loolu itam jafe-jafe la ci jigéen yi ah, jafe-jafe nag bari na courant bi moom biñ ko installé ba léegi dara taxagu ci te même eh, eh, barke dem rek lañ fi ñëw ne pour taal ko waaye bi ñu kiiyee ne transport bi lakaat na te ci defe naa xaw ma septembre bi la xaw ma mois de août bi bi ñu ñëwoon pour taal ko euh, kii bi ñu transport bi ñu monte woon boobu defe naa cinquante kVA la woon boobu lakk ñu wàcce boobu indiwaat beneen boobu itam vingt cinq kVA la boobu itam barke dama lañu ñëw bi ñu taalee boobu lakk xam nga yéegal cinquante mu lakk nga wàcce teg vingt cinq a ah, xam nga ne loolu moom boo ko déggee itam xam nga ne itam kiiwul ci xel ah waaw loolu itam wax na foofu daal may lancé appel ne buy ñëwati na upp kii boobu cinquante bi ndax te mu gaaw ndax fii ay ouvrier yu bëri ñoo fi nekk muy mécanicien soudeur métallique ay tailleur ak lu nekk lu yoo xamante ne dañoo war a jëriñoo ci courant pour kii ko ak lendemaay bi insécurité bi ndax dog euh, dëkk bu nii timis ngeen dugg ci néeg yi lu nekk day xew ndax boo seetloo at bu nekk fii li wax vol de bétail boo calculer li fi jël ci ay jur jéggi na dayo te loolu itam mun nañu wax ne euh, lëndëm bi bokk na ci ndax xëy na bu amoon leeraay xale yi mun nañ di veiller boo yenn heure yi sax nga xam ne heure bi boo ko defee nga mun a ki waaye loolu moom jafe-jafe yi moom fi moom vraiment bari na te tar na waaw boo demee ci mbéy mi itam loolu itam xam nga ko ndax mbéy béykat bi boo amul jiw wala amoo matériel loo doon jàmbaar itam sa njàmbaar du feeñ kon loolu itam manquement la bu mag ci matériel agricole ak intrant ak semence encore semence de qualité jigéen amoon nañu projet bi ñuy yëngu waaye boobu defe defe naa boobu daal doxatul waaw doxatul jigéen yi moom vraiment ñoom seen bopp la ñuy kurti kurti noonu rek waaye ay finance financement yooyu moom vraiment buñ ko amee itam benn yoon la walla kii waaye ñaareel ci jafe-jafe yi rek ah, bokk na ci ci extension euh, lotissement ndax boo seetloo dëkk bi defe naa 1980 lañ ko lotissé boobu ba léegi defatuñu ay lotissement euh, te comme dëkk day mag euh, war na itam nit yi bu ñu defee ay demande ñu daw ci demande yi ndax. cer ay ñetti góor ak seen njaboot nekk ci ku nekk tabax ak say jur ak say bagage yépp xejil ci loolu kon nag bu defee demande ne dama bëgg a euh, génne pour kii loolu war na ko war na mun a yomb mun na doon itam ay jafe-jafe biir kër gi itam te loolu itam boo ko nasaxalee tuuti leneen mun na am kon nag ci demande parcelle bi parcelle yi nañ ci gën ci farlu itam ndax daaw ñu ngi woon ñu ngi naan euh, xaw ma deux mille vingt bi ñu ngi ne woon mm, yëngale euh, saañ ak euh, sangaay moom la ñuy kii bu paree sorox la waaye ba léegi sorox moom kiyagul te ay demandes yu bari ñëw na am na ñu nekk fale mairie am na ñu laaj itam pour kii. te mënoo ñun mënuñu ñoo jóg dem dagal leen ndax tolluwuñu foofu comme ñoom ñoo yore affaire boobu nag nañ ci gaaw pour dimbali ñu foofu comme li ma leen di wax ci histoire du Sorox bi itam dëkk bi comme fale ci guy yi nekk foofu la njëkkoon a nekk waaye problème mu garab yu mag yooyu ñoo taxoon ñu jóge leen jëlee leen foofu sanc fii ñoo ngi sanc fii fi ñu nekk nii 1922 1922 euh, ba 2022 bi centenaire la kon nag comme gis nga dëkk bi nu mu toll kenn nit moko ko dem nañu bo ay lu mot cent et quelque nangam concession te warna na mën upp loolu te ba tey kiiwul nañu jàppale ci loolu ndax bo seetloo Sorokh mun nañu wax ne soixante pour cent yi ay jeunes lañu te liggéey bi amuñu liggéey moo tax fii décembre ba janvier exode rural maanaam nooraan bi te foofu ñi ay maçon ñi dawal ay saret ñen ñi arrosage affaire yooyu wala ay gardiennage yooyu te fii ñu jàng am na ñu bari ñoo xamante ne am nañu seen diplôme te amaguñu benn liggéey jotaguñu ci ay formation itam pour former leen ci dara ñu mën a yëngu ci affaire yooyu yëpp loolu moom jeunes yi moom amuñu liggéey xam nga boo seetloo maanaam dëkk bi nu mu tollu ak maanaam ñi ci kii ndax am nañu ba ñu baax ñu dëkk ci dëkk bi ñu ngi leen ci jàppale ci côté boobu te xëy na xëy na su ma waxee ne dañ leen fàtte kooku sax mën naa gis boppam te fekk na moom mu ngi def am na doomu dëkk bi moom xëy na ay doomu dëkk lu tollook ñaari nit xëy na bu ñu amoon ñeneen ñu mel ni moom wala nguur bi xaw leen a jàppale tuuti na mu gën a tane waaw waaye bu nekk doon ñooñu itam moom affaire bi dina xaw a tar tuuti. Mm, bu dee suñu maire bi moom ah, mun nañu wax ne dañ koy ñaanal rek ndax moom fàttewul waa Sorox moom jàppale nañu ci lu bari lu bari presque moom itam fu mu toog boo waxee mu ne Sorox

xëy na demande yi bare na waaye offre yi tolluwul nooñu ndax biñ ko defee appel ci poste de santé bi ndax euh, waa ENDA biñ ko doon liggéey dem ba jamono dara amatu fa moom moo débloqué xaalisam motali ko ñëw kii kon xam nga foofu mënuñ koo fatte waa dëkk bi itam doomu dëkk bi itam ci équipement yi jàpp na ci mer ci bopam itam ay matériel ci biir hôpital bi fofu itam ay équipement yu bari dugal na ko foofu ci courant bi nii presque li mu fi dugal mot na ay 5 6 millions yooyu te loolu itam lu wara lu ñu wara a teg bët la xëy na bu ñu waxee ne dañu wanuñu ginnaaw moom xëy na suñu problème moo bari te mu bugg fii bugg fale waaye ñu ngi gën a lancé wat appel suñu autorité yi autorité administrative yi pour jafe-jafe sorox yi ñu mën leen régler ci daar daar sax laay wax ndax jot na ñu ngi ci waxtoom sorox daa wara a ci ñu ngi ci temps émergence nañ ci dox bu baax a baax maa ngi leen di gërëm di leen sant na yàlla def jàmm